tey euh, sa doom yi nga xam te ne bi suñu yaay ji ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla na suuf ayof ci kawam mu dénkoon la dénkoon la léppam tey euh, sa diggante ak la diggante numéro 2 naka lay demee moment bi. macha allah alhamdulilah rabil alamin laaj nga ma loo xam ne vraiment dinaa dina ma neex daf ma neex parce que tontu ba la la la laa dencoon xam lu tax man la tontu ba laa dencoon parce que Lac de Guiers mbër la comme yeneen mbër yi mais la de Guiers aussi xale la comme yeneen xale yi. yaayam bi nga tudd Ramassène kooku ku sori woon la ci man ku dee ak sa bàmmeel barki laa ilaha illallah ku sori woon la ci man billahi wallahi bu togge bu toggaan sax ceeb ceeb jën fu mu mën nag dina ma woo tons foo nekk tey ceebu jën la de billaahi bu toggoon ginaar même bu ko xañee ay doomam billaahi wallahi dina ko nëbbu ñëw jox ma ko ne ma tons kon kooku dama koy ñaanal rek gudd yal na ko yàlla seddee suuf ci kaw fi mu jëm noonu jóge fii jëm noonu yal na yàlla def mu doon bàmmeel bu am galaas lépp lu ñuy ñaanal néew rek yal na ko yàlla defal ak bépp néew bu ko fekk ak bu mu fa fekk di ñaan gudd fan ak wér la de question bi vraiment moo tax xamatuma lu may def xam nga bëñ ak làmmiñ dañu dëkk léeg mu am jafe-jafe léeg ma xool ko kii saaga ko billaahi wallaahi mais dara xam nga la de guerre bu ma téye benn baaraam la moy téye sànni ma fële léeg-léeg ma fekk ci khat khat je suis le seul personne parce que seexal xale ku ak sa bamel nit ñi dañuy wax sa yor la de guerre la ragal mais c'est le respect lele léeg ma fekk ci ay khat khat mu wax manako ne ay góo ful kan là-bas yow lo ñu lan la parce que ilaha illallah mu baye léeg nit soxla ci mom ci man ngay jaar te bu moko ne def ko barki la ilaha illallah mu def ko kooku yàlla may na ci mom yalla ku dee ak sa bàmmeel bàmmeel dara xajfu fu dul dëgg tey bu ma wala ma wax gauche ma wax droite do ma gissate ak mom man je suis comme ça wallahi kuma xam xam ne man ci koy Burkina bi dafa nek ci man parce que mooy sama deuxième pays le Burkina est-ce que tu comprends ba taxna vraiment neex naa tete parce que pourquoi ma ne neex naa tete koo ne bàyyi mu baye koo ne jaaral ne mu jaar kon neex naa tete les entraîneurs ay sémb lii lañu wax ma mais billahi su ma ne ko gaynde yow yow lan la lii ak lii ak lii lan la mu ma tons ma ne ko na deñ loolu bu mu amati je ne peux plus voir ça. tey euh, bu ñu taxawee ci carrière am tay euh, jóge na ci combat diggante mak euh, Eumeu Sène bi mujjee bëre toogoon na fi diir am problème combat diggante bi combat am taxawon diggante mak Siteu. combat boobu naka ngeen koy waajee ak xale bi nga xam te moom ngay moom ngeen di bëri na xam ngeen ko. waaw ah, mais laaj nga ma question bu ma neex. la de guerre dafa dugg Pikine am fa ñaari ndam kon la de guerre warul woon taxaw wala xaar. ñu naan ko war nga am bëre war nga war nga am làmb wala war nga am kooku ba mu génne ca làmb ji ca loon ca ëllëg sa lañ ko doon jox làmb mais ñamu daan jox nañ leen làmb. senegal doy na waar kenn mënul wax lépp yal fi yàlla yokk jàmm yal yàlla gën a boole xol yi kumba am ndey kumba amul ndey dëgg bi dafa des safar xorom bu amee combat day li muy téye li muy téye boppam dafa bari moo tax duñ sawar ci ay mbiram sport de combat le meilleur lutteur le meilleur sport de combat balaa nga koy pratiquer il faut savoir euh, euh, encaisser bo mënulee encaisser mënoo nekk un sportif de combat mënal encaisser mënal défendre mbeur nak bu mënulee défendre doonoo mbeur parce que boy attaquer té amo défense tu vas encaisser beaucoup de buts te beaucoup de buts ci lamb boko encaisser moy ci souf nga jëm wala nga ñak ay bëñ lat dafa am lu ko yalla may mbër yi mu bëreel nekk ku nekk ak façon bu mu la daanee barki ku ci nekk façon bu mu la daanee mais Sénégal xam nga bon kenn mënul wax lépp daal yàlla nañu yàlla suturaal yàlla nañu yàlla defal jàpp. Ah, non initiative initiative initiative moom ak ki mu ko séqalee ñoo koy jël ah, ñoom ñaar ñoo koy jël mais alors ñoom ñaar ñoo koy jël mais ñoom ñaar ñoo koy jël mm. bu nu jël lépp solal ko la de guerre ban combat la fi match nul mooy ban ban waaw très bien Modou Lo mhm. waaw Eumeu Sène ñaata match la am <laughs> Eumeu Sène ñaata défaite la am hmm? mooy li ma la wax rek kenn mënul wax lépp yàlla nañu yàlla suturaal yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla defal ñu jàmm ba ci bés ba ku si nekk nag boo ñaan da nga ñaan li gën ci yow ñuy ñaan ñun waa Kër la de guerre yàlla na ko yàlla may ndam site on a rien à le dire c'est un gosse il est très gentil il est très sérieux xam nga la moom neex ci moom jëfinam moo ma neex jëfinu site moo ma neex parce que waxinam ak jëfinam dañu méngoo parce que li muy wax loolu lay jëf man c'est ça qui me plaît sur lui barki dembo Ndiaye def na fi sorti wax wax bo xam du waxu xalé waxu magum jëm il faut nga doon nit am intelligence pour dégg looy di wax mais boo nekkule nit amoo intelligence jarul nga ci werante wala ngay werante kooku parce que téré la wax le Sénégal c'est notre Sénégal kon ku fi dugg pour def jam on est avec toi ku fi dugg pour def ay on te fait sortir dehors

xam nga léegi da nga poser posé question Je ne la de une une am fa victoire ñu ci ci ci c'était motlo, ou ak sa mais la non ah. <laughs> c'est un peu. non c'est vrai c'est vrai non c'est vrai non il a peur de la guerre non je vous en prie je vous en prie on est tous des sportifs et nous, ñëpp ay sénégalais on se connaît Medina la judo je suis né à la je suis né à la rue 25 angle 26 fa faut defee lépp tey ce may wax ni ñom xam nañu notre champion bu nekkoon foofu moo Aline John champion d'Afrique, lutte gréco C'est un ami d'enfance, on a tout fait ensemble. Quand si je te dis les sportifs là, c'est un peur. day am mën naa la ñemeñ ci biir nit mais bu ma wéeteeg yow ragal la mais il faut nga des jàccaar pour mën comprendre li may wax lan la la dëgër barki laa ilaha illallah mbër bu ko ciy wax ci rajo bi nga taxaw naan allo allo way way way mais bo wéet ak mom barki la ilaha illallah do wax ils sont peur de lui tous les lutteurs mais mais alors ah, nan waxante deug nan waxante deug bo mën ne Lac de guerre bés ban la ban bés la fi la de guerre amul ban mbeur mo daan la de guerre daan Eumeu Sène daf ko daan daf ko daan tey de su ma su ma soluloon lii ma won la prise bi ko lat def bu dee un sport de haut niveau barki laa ilaaha illallah lat ëmb seen moo njëkk suuf bopp bi mais Sénégal wax fi dëgg moo fi yombul <laughs> xam nga trois jours après ce combat-là trois jours après ce combat-là le grand frère à Eumeu Sène ak Eumeu Sène booy bàmmeel dafa xat loo fiy wax na doon dëgg te loy wax suba buñ la nee bii nga ne maa wax li la ak li ak li la kan ko waxal ne dëggal wala du dëgg ñu dajé RTS def dernière kii face à face ñi ngi gaare suñu auto Eumeu Sène ñëw droite suñu suñu wet barki laa ilaaha illallaah barki seexal khalifa la lay wax

mais dama commencé na la lamb dafa am kumba am nday ak kumba amul nday booy wax bi may wax foog nga doon un grand monsieur. diko ko dégg waaw très bien. alors. Ah, mais ki ngeen di bëreel. ndax suivre ngeen combat bi passé bi bimu beure ak Papa saw fekk jël xam nga euh, Siteu c'est un grand lutteur. Lac de Guiers.

dara yombul Siteu c'est un grand lutteur je te dis dara yombul bu yombon xam nu ñu def tok suñu kër tëdd nelaw bu heure bi jot ñu dem ci arène ba bu yombon non lañu def mais du ñu ngi ne di kërti kërti di kërti kërti xamaguñu sax date bi kañ ñu ngi kërti kërti di kërti kërti di kërti kërti lépp pour daan Siteu kon lool kon lool yomb mais c'est bien c'est bien kenn mënul wax lépp c'est bien même bu dul mën nga ko xasee lu nekk mais pas ñàkk ñàkk entraînement sañu ko xam ko léeg-léeg day dog dog sonn Joos ma ne ko yow tey ngaa toog ba suba nga kii mu ne waa damay toog ba suba day xëy rek dem na li mu bëgg la kon nit ki li mu bëgg ñaanal ko ci yàlla na ko yàlla gën a jàppale yàlla na ko yàlla gën a lafal cat moo xam fu mu bëgg a yegg yàlla na ko fi yàlla yóbbu bu ko gën bu gënee ci moom கொஞ்சமா நகரவாரி